الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu tur borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi dafa am benn laaj bu tàbbi bu rot ay nit di ko laaj tey ci sunu réew laaj bi mooy maa huwa aktharu shay maata fi mujtamaina ana yan mbir tey moom mooy li nga xam ne tey sunu société ñàkk na ko ana yan mbir ñoo faatu ci biir société bi maa huwa aksaru shay maata fi mujtamaina sunuy càmbartey société sénégalaise ñuy xool lan lañu ñàkk lan moo fi jóge lan lañ perte danañ fekk mu nekk ñeent mbir bi ci njëkk mooy asidqu ñaareel bi alxayaa ñetteel bi al amaana ñeenteel bi al wafa bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñeent yooyu ñu ñàkk benn la ni jël ba yàlla dellu siwaan ñu fi ak jàmm mbokk yi ci yàlla xeet woo xam ne dañoo ñàkk dëggu xeet woowu duñ dem nit ñu mu mun a doon mbooloo mu mun a doon kër gu mu mun a doon xeet wu mu mun a doon nit ku mu mun a doon bu fekkee dëgguwoo say mbir dara du ci baax dara du sotti lu tax inna allaha xalaqa alsamawati wal ard bilxaq wa talaba ila annas an yabnu xayatahum ala alxaq فلا يقولوا إلا الحق ولا يعملوا إلا الحق borom bi tabaraka wa taala bi mu sàkkee asamaan ak suuf bind leen ci dëgg la leen bind yàlla tabaraka wa taala ci dëgg la bind asamaan ci dëgg la bind suuf waaye mu sàkku ci doomu aadama yi mu wàcce ci kaw suuf nañu tabax seen dund ci dëgg bu ñu wax lu dul dëgg bu ñu jëf lu dul dëgg tey nag ñun ci sunu dund dañoo dëpp mbir yi sunu lépp caaxaan la ak neen ak ñàkk dëgg da ngay gis kilifa gu mag nga koy ñee fekk dëgguwul nga gis nit ku rëy nga koy ñee fekk dëgguwul nga gis nit ak melokaanam fekk dëgguwul loolu moo ñu indil problème ñàkk dëggu dem nañ sax ba ci sommet bi gën a rëy ci ay njiiti réew wala ay kilifa naan maa waxoon waxeet loo fay dégg mooy ñàkk dëggu te loolu sax du ci ñu ndaw ñi waaye ci ñu mag ñi mbokk yi dëgg moom mooy defar dund asidq huwa alxaq dëggu moom mooy dëgg bu ñu bëggee xam ku dëggu di wax dëgg di jëf dëgg nañu xool fan la toll ci asidq والصدق من المتممات الإيمان mbokk yi dëggu moom mooy mottali ngëm looloo tax yonent bi ne ku dëgguwul gëmoo tabaraka wa taala ndax dëgg mooy mottali ngëm ngëm saa yu manqué rek dëggu moo fa jóge su dëgg ñëwee rek ngëm mat waaye wa mukammalaatil islaam dëggu mbokk yi mooy mottali lislaam benn waaye nee na boo xoolee nit am looy sikk ci moom lu manqué lu ndaw xamal loolu manqué foofu mooy dëggu su ñëwee rek lislaam waa ji daal di mat wa lihaada ata allahu tabaraka wa taala على المتصفين به فقال ولهذا أثنى الله على المتصف على المتصفين به فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه سندمج القرآن في سورة أحزاب aya 23 dananu fekk borom bi tabaraka wa taala di tagg ñi dëggu yàlla joxoñ leen baaraam naan ñii ñoo mel melokaan bu mel nii ñi mel melokaan bi ñooy ñi dëggu yàlla nee na di nga fekk minal muminin ci way gëm yàlla yi ñi yàlla moo leen seedeel na gëm nañ rijaalun ay góor yoo xam ne sadaqu gis nga ma ahadullah alay la ñu waxoon ak yàlla da nga leen fekk ñu ne keng deltuwuñu ginnaaw dara delloowu leen ñoom ba ñu waxee ak yàlla ci gëm nañu delluwuñu moo tax ñu ne ngëm dëgg moo koy mottali su nit dëgguwul gëmul ndeke kon foog ñu dëggu wa amara allahu subhanahu wa taala bi maayati sadiqin moom borom bi sax mu sàkku ci ñun ñëpp mu nañu dem leen ngeen ànd ak ñi ragal ñi ñi dëggu mu wooñu ci kàddu ngëm borom bi nañu yaa ayuha alladina amanu ittaqu allaha wa kunu maa sadiqin ee yéen ñi gëm yàlla ku woote yàlla abdullah ibnu abbas nee na booy dox ba ci yàgg nga dégg yaa ayyuha alladina amanu mu ne taxawal yow la ñuy waxal bul teg benn tànk ubbil sa nopp déglu daf lay wax defal wala mu ne la bàyyil yaa ayyuha alladina amanu ci ab jullit foo rouge la bu tàkkee amatoo droit bouger lu dul foo bi fay nga départ fekk dégg nga lim la wax lan la nu yàlla wax mu ne ragal leen ma man yàlla moytu leen ma waaye ngeen jóg dox ànd ji ak ñi dëggu wa kunu ma as-sadiqin kon ndigal la yàlla joxe ku àndul ak ñi dëggu say mbir du sotti wa qala taala sunu borom subhanahu wa taala wax ne fa ida azama al amr falaw sadaqu allah la kaana xayran lahum ba ñu demee ba mbir mi daal ne këtt ne jonn ñu dogu nga xam ne kenn ci ñoom waratul dellu ginnaaw ndax dogu nañ jël nañ décision yàlla mu ne bu fekkoon ne dëggu nañ dana nekk yiw ci ñoom waaye dëgguwuñu mbokk yi dara yàqu réew mi lu dul ñàkk dëggu di nax nit ñi di wax loo xamante ne yow ci sa bopp gëmoo ko jàpp jaami yàlla yi di leen nax di leen corrompre teg sa bopp fu kawe jàpp jaam ñi di leen fowe ci suuf loolu moo tardé réew mi ñàkk dëggu tey lu la nit di wax rek jox na la genn wàll dese genn wàll di xaar fu mu awee action rek mu trahir la dem yoonam fan lañ jëm bu ndemee ba réew mi ñi gën a mun a ware ñoom ñoo nekk ci kaw xoolal politicien amatul jikko looy dégg koo wax ñu ne la ay transhumance yendu fii fanaan fii far fii far fële yal na yàlla yërëm kilifa ga waxoon ne gor du soppeeku gor ñu ne ah mu ne du soppeeku foo ko fekk benn couleur la yor benn melokaan moo tax mu bokk ci naaf mandarga naafiq mu zabzabina bayna zalik laa ilaha ula wala ilaha ula doo ko fekk ci jullit doo ko fekk ci yéeféer yi foo dem fekk ko mu toog kooku fan la bokk borom bi tabaraka wa taala mu ne wa man yutii llaha wa rasul fa ulaika maa alladina nama allahu alayhim min annabiyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا benn sahaaba bu tudd xaaris dafa toog ci kanamu yonent bi rek jeex tàkk sawruuj ba yaram bi weex ñenn ñi ne dafa jooy ba rongoñ yi rëdd lex yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw yow melokaan bi lan moo la ko def mu ne bëgg la yow yonent bi rek moo ma def nii man mënumaa tàqalikoog yow mënumaa toog ñaari minute yu ma la tegul bët même bu fekkente ne ëllëg yowmal qiyaam man damay dugg aljanna yow yaa may raw ci place yu kawe yi ngay nekk kon dootuma la gisati loolu rek moo ma def nii aaya bi daal di wàcc yàlla tabaraka wa taala ne ku topp yàlla topp yonent kooku topp yàlla ak yonent danaa ko boole gaa yooyu nga xam ne maa sotti ci ñoom xéewal maa leen defal xéewal dinaa ko booleeg ñan minan nabiyin ci yonent ya lay dëkk ak ñan mu ne wa siddiqin ak ñu dëggu ñi ak ñan wa shuhada naa ko boole ak ñu tuur seen deret ci yoonu yàlla ak ñan wa salihin dinaa ko boole gaa yu baax yi gis ngeen waajib lan moo tax mu dëkk ak yonent yi dafa dëggu ndax yàlla moo ne wa siddiqin dinaa ko yóbbu ca ñu dëggu ñi mu dëkk ndeke ku dëggu day dëkk ak yonent dëkk ak sohada dëkk ak saalihin yàlla mu ne kuy ut ak xarit boo gisee gaa yi mel nii bu yeboo nga jàpp ci wa xasuna ulaika rafiqa amul ñu gën a rafeti xarit àndandoo ñu raw gaa yi ndax nit mën ngaa am xarit bu gën yonent yàlla ibrahim ndax mën nañu am xarit bu gën yonent yàlla muusa ndax mën nañu am xarit bu gën yonent yàlla muhammad ndax mën ngeen am as siddiqin xarit bu gën aboubacar saddiq nga xam ne garaatu siddiqin yi moo ko takk yowma qiyaama ki dëgg kon yàlla subhanahu wa taala ci ñooñu la koy booleel sunu borom subhanahu wa taala wax ba tey ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم borom bi ne bu demee ba yowmal qiyaam yàlla day fay gaa yu dëgg woon li yajziya allahu saadiqina bi sidqihim lu tax yàlla di leen fay parce que dañoo dëgg woon waaye yàlla nee na damay mbugal yowmal qiyaam ñi nga xam ne ay naafiq lañ woon dëgg wuñu woon kon doomu ndey yi mbokk julit yi dëggu lañu sant ab jullit moo tax alquran ne walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun ñi nga xam ne ki nga xam ne dafa indi dëgg ba pare dëggal dëgg gi borom bi ne ñooñu ñoom ñooy ñi ragal yàlla kon wa sidqu sima min simaati alxayri al umma قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت متفق عليه dëggu mbokk yi màndarga la xàmmeekaay la bu ñuy xàmmee xeet wii di xeetu lislaam dëggu dafa am benn kër goo xam ne dañ ko doon tabax ci benn quartier gars yi di fa sotti mbalit boroom kër gi tukki ñëwaat fekk mu fees del mu dem porte plainte police ak service d'hygiène ñaari groupe yooyu ànd wàcc ci quartier bi di marqué quartier bi kër gu ñu fëgg rek boo ubbee ñu jël numéro kër gi jël boroom kër gi jox la convocation ba ñu egsi ci benn kër fëgg am ko ubbi bunt bi mu taxaw seen kanam daal di muuru ci kaw ba ci suuf yépp mu ngi xijaab ñu ne ko convocation am mu ne pour lan la ñu ne ko kër gi ngeen di sotti mbalit mu ne man bokkuma ci service d'hygiène bi daal di xëcc policier bi ne ko nañ dem kii lu mu wax ñii lu ñu wax dëgg la kii bokk ci nan dem xoolal dëgg la war a xàmmee xeet wi suñ demee nag ba xàmmeetuñu jullit yi loo wax ñu ne mburu foofu ko fëriñ loolu la léegi nit ñi di wax ñépp a yem amatul jullit amul yéefér kenn dëggootul xàmmeetuñ ñu te mu nekkoon sunu xàmmekaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xeet wi du ñu deñ di nekk ci jàmm feek suñu waxee dëggu laa tazaalu hadihi l umma bi xayrin ma ida qaalat sadaqat xeet wi du ñu deñ di nekk ci jàmm ci jàmm rek la ñuy nekk ndax yonent bi moo ko wax kañ su fekkee suñu waxee dëggu su fekkee suñu attee maandu su fekkee bu ñu sàkkoo ci ñun yërmande ñu yërëm ñett yi feek mu ngi ci xeet wi ki yàlla yónni woon ci xeet wi nee na xeet wi ci jàmm rek lay nekk léegi nag kon li tax kon nekkuñu ci jàmm mooy bu ñu waxee dañuy fen suñu àttee duñu maandu bu ñu sàkkoo ci ñun yërmande kenn du yërëm koo ne bàyyil du bàyyi ku nekk day jaay sa moroom doole di fëgg dënn di ko wan ne maa la mën maa la ëpp doole dinaa la dóor duma la tëj la loolu tey moom mooy waxtaan ci réew mi aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله والصدق والإيمان قرينان لذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الكذب بقي دق أنقم يالله ñoom ñaar ñooy ànd ñaari laaf la ñaari tànk la ñaari loxo la su benn bi demee rek beneen bi dem looloo tax yonent alayhi salaatu wasalaam dàq ngëm ci fen moom yonent dañ ko laaj ayakunu almumin jabbaan qaala naam ayakunu almumin baxiil qaala naam أيكون المؤمن كذاب قال لا benn waay moo ñëw ci yonent ne ko yonent mu ne ko naam mu ne ko ndax jullit dana ragal mu ne ko waaw waaw yàlla dana bind nit mu am natiir ragal mën na ragal ay niti moroomam mën na ragal rabu àll mën na ragal lu mu doon ndax nature la bu ko yàlla bindee kon nit jullit mën na nekk jullit ba pare ragal ñu ne waaw yonent ayakunu almumin baxiil ndax jullit dana nekk ku nay mu ne waaw jullit dana nay nekk jullit ba pare nay ndax melokaan la ci moom am na lu ne gàññ waaye dafa ŋott dafa nay ñu ne waaw yonent ayakunul mu'min kazzab ndax jullit dana fen mu ne déedéet jullit du fen allahu akbar xoolal jullit dana ragal jullit dana nay ndax jullit dana fen mu ne déedéet jullit du fen benn waaye nee na bu ñu bëggoon defar réew mi dañ naan ñëpp bàyyi leen fen bu kenn fenul rek mu ne benn bis réew mi yëpp taxawaat waaye dañuy fen suba ba ngoon waaw fen weesuwul xoolal benn waay bu nekk fële nga nekk fii mu ne da lay seetal da lay seetal mu ne dem ba ci rajo allo waaw kooku diw mu ne man la kay dama doon seetlu waaw bismillah waxal sa soxla boo waxee sa soxla kay après bu la seetalee gis ko benn waay benn borom xam-xam daloon weddiloo nit ñi gisaane kan yi mu ne kii xamul dara gaay ne ko kii moo fi mën ci jamono ji mu ne nan leen dem dinaa leen wax ne xamul dara ñu yegg si toog da ngeen di seetlu mu ne waaw mu ne waa ji waaw lu doon sa mbir waa ji ne mu ngi nii waxoon naa leen xamul dara su xamoon dara kay du ma wax luy sa mbir kon damay ñëw rek mu wax ma mbir yëpp waaye asalaamaaleykum mu ne luy sa mbir kii kay xamul dara xoolal tey bu ngeen dégloo rajo di ngeen gis ñaar ñu dee jëkkër ak jabar ñaar ñoo xam ne dañoo dee tey lu leen rey dañoo demoon di wuti doom dem ci benn sëriñ mu jox leen ay garab ñu naan ci saret bi ñu nekkoon ca la ñu daanoo saret bi di wër ak ñoom ci àll bi ba nu sonn benn waaye for leen yóbbu leen dëkk ba balaa ñu leen di yóbbu hôpital ñoom ñaar ñëpp ñu dee parce que nit ñu gëmuñu yàlla koo gis mu ne damay ñaanlu damay seetlu damay gisaane xoolal réew mi tey ñi fi tabax ay kër jënd ay 4x4 ndax gisaane ak seet télé yi dañuy seet rajo yi di seet koñ yi foo tourné am na kër gu ñu luwe gu wees gu ñu ubbi ku fi nekk ku xam lépp ku mën lépp kookoo fi nekk ku mën lépp ku xam lépp fu ñu jëm musidɓe fulɓe xutba men hannde wonnoo ko ما هو أكثر شيء مات في مجتمعنا sen ƴeewi renndo men hannde en tawat woni geɗe ina iwi e nder renndo ngo ɗiɗon geɗe sina ƴeewe tawete ko geɗe nayi gooto woni asidqu woni gonɗude ko rowi hen woni alhaya woni neɗɗo o o hersa wadde hunde ko boni ko rowi hen woni al amana woni hoolare alwafa timmingol sen ƴeewi hande l'islam o ko tagi wawa darade en tawat koɗo eɗo gueɗe nayyi iwi e julɓe ɓe a taway juulɗo dow ha less kono o wona gonɗuɗo so haali tan hersa so wima o watta so fodanima o timminta sa hoolima o wona gonga sen yeehi noon ha julɓe ɓe fof ɓe wayini oto aduna o fayi te nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wino rendo ngoɗo koye jam tan ɓe gonata so tawi eɓe timmina ɗeɗo gueɗe so ɓe kaali ɓe kaala goonga so ɓe ñaawi ɓe ñaawa goonga sa ɗaɓɓi e maɓɓe yurmede ɓe jurmoma nelaɗo wino ɗeɗo tati so tawino ko hen tan gonɗen koye jam goneten kono hande sen ƴeewi holko tagi en wonde e e goonga holko tagi en mbawa dañde jam holko tagi l'islam o wawa darade yimɓe ɓe fof koye fenane ɓe goni yi neɗɗo dow ha less o haala nana so yehi ganda ko fenare hoolomo sa arti janngo tawa ko penale dow ha less oto paaɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o namdama namdal namde tati o namda ɓe mbimon beele julɗo ina wona kulɗo reedu o wi eyi julɗo ina hula ɓe mbimo julɗo beele ina wasa ƴettude jawdi mum ina wona mo ganduɗa o tottirta o wi eyey ɓe mbimo mbene julɗo ina wona penowo o wi ala ndeke julɗo ina satta wasa tottirde julɗo ina hula kala koyi kono julɗo fota wonde penowo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wo namda ko ɗum o wi en ndeke sen yini wonde julɓe goonga en gonat goonɗuɓe nelaaɗo sallllahu ai sallam o li o riiwi limanagal kala mo ngannduɗaa o gonɗinaani o wi kala mo gonɗinaani on wona juulɗo mo nelaaɗo wi wona juulɗo noon kala jiɗɗo waɗde ɗum juulɗo on tampay so nelaaɗo darima wi baaɗo ni walla kaari walla dañɗo ɗiɗo sifaji on wona juulɗo enen en rendi en wi en wi en waɗat waajo o juulɗo en ɗampintu koye men kono on o wawata wonde juulɗo allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi allahuma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله